<laughs> gis nga gis nga xeex stratégie technique la rek bu ma xamaan bu ma bu ma yoroon numéro numéro mbay jonn tey tey barke bi man xëyam lakk war dinaa ko diggante ndaw sii di nabu daas ak fu <laughs> fuuta tampis xawma fuuta tampis fuuta tampis fuuta tampis ne wuturam ma ngay tàngal nabu daas a ngay tàngal kii naa ko demal Côte d'Ivoire kii naan na cher kii kenn ku ne du su du solli say mbuut barke yomal xiyaamal ak lan mooy problème bi xeex bi tàng na de ci internet bi Nabou Daas ma ngay solli ay mbuutam Fouta Tampi nee na ko waaja nga fekk war Côte d'Ivoire ak nangam sangam uhela quel problème ñaar ñi buñ ci waxut ñaar ñi buñ ci waxut di leen sulli mbuuti keneen de ku ci lumuti fa ñaar yi barke yomal xiyaamal ak bar yaa ngi ci risi <laughs> non non Sénégal Sénégal noo sutura fuuta tàmpee ngay tàngal leen daal dinaa leen ko waxal yéen ñaar seen problème bi xamalan la lillaahi wa rasuli ak mbokk gi yéen réglé lañ ko amaama yaabul lu ko may nag leena la ñuy def woo leen ca ndawum pencum réew ma lijjanti ko barke yo mal xeama lakk ñaari jigéen rek naanoo toj réew mi kii di sulli fii kii di sulli fii lu waaye gas suul lu gën a ñëw gas wàq fuuta tàmpi nee na ko li a la xamal nabu daas nee na ko li ma xamal voilà wérante leen di ngeen a ci gatsa gatsa nooy soleeku kër de buri buri mais lan mooy problème bi <laughs> non fuuta fuuta tàmpi wax ji laa bëgg mu dakk na bu daas wax ji laa bëgg mu dakk kenn ku nekk nag mi ngi sulli mbuuti jàmbur naa ko ban la wiñaare fee kii naa ko ban la gajjee kii naa ko ban la ruuxee xamal la problème bi lan ni nag di ngeen wax ba dugal seen bopp Sénégal xamal leen nag yóbbu leen olof Njaay nee na ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp ànd leen ak patt ji ci dund yàllay kese Sénégal xam nga luy problème bi koo xulelu bu problème amee ñu weer la ci internet bi léegi wérantiwun ay jëw nit jëwatuñ de léegi ci internet bi lan luy summi ba nga ne dung nga mel ne géej koŋ bakke yo mal xaaba lakk man Sénégal nekk fi picc sax moo gën a wóor réew mi xam nga luy problème bi réew mi mën naa la koo xam nekkul ci daasi mooy ki jëndab si lépp xotti ko def ko mbàjj sàngoo ko kooku moo nekk ci jàmm. non <laughs> man kenn man oh, man duma xuloo man duma nekk di génn samay wax de. Sénégal doo dem fenn ca bis ngay xëy rek barke bi mal xaamal lakk ba joteeg nit ñun la yaa dem Maroc yaa dem Dubaï yaa dem fële loo fi wutu woon bëgg a jolle bi quel problème. nag ni mu mujjee la wut sama yet rek di ko bàcc sa Dakar rek noppi mbaa ma bàcc sa Dakar.